di leen ñaanal yàlla di sàkku ci yéen ñaan yàlla nañu yàlla nangul ñu ngi delluwaat ci suñu tafsir bi ñu baaxoo woon def ci waxtu wi te juma an kappa seen mbokk seen xarit seen taalibe di imam Umar Diallo moo leen koy defal waxtu yi آه، نيجي وان سورة البقر نيجي وان سورة البقر يا الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله رؤوف رحيم borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne inna allazina gaay nga xamne amanu gem nañu wal ak gaay nga xamne hajaru gàddaay nañu gëm nañu ba pare gàddaay te nit mënul gàddaay te gëmu wajaahadu xeex nañu walla kër-këri nañu fi sabilillahi ngir kawel diine yàlla def nañu effort des nañ sacrifice li ilaani diinillaahi ngir kawel diine yàlla wulaaki ñooñu jëf ji jëf ju baax ji gëm nañu ba pare gàddaay nañu ah jihaad nañu ulaaki ñooñu yarjuuna yaakaar nañu raxmatallahi tiyaabak yàlla wala payuk yàlla wallahu yàlla gafuurun jéggalaakoon la lil muuminiin ñeel jullit yi waaye raxiimun aji yërëm bihim ci ñoom wax jooju jeex yàlla nee na way yasalunaka ñu ngi lay laaj yow muhammad sallallahu alaihi wasallam anil khamri wal maysiri ñu ngi lay laaj alxamri mbiri sàngara wal maysiri ak wure wure nak lépp loo xam ne wure la bépp jeu hasard la loolu la wax wure hmm la ñuy wax wure maria ci la bokk boloot ci la bokk lido ci la bokk cokki xam ci pulaar ak wëli <laughs> yooyu yëpp ci la ci la bokk carte xaalis ba moo gën a bon moom moom moo gën a bon yooyu yëpp ci la bokk PMI ci la bokk yooyu yëpp ci la bokk waaw uh, kii foot nu ngeen koy ah pari foot ak baby foot lépp baaxul santul yàlla lépp dafa araam waaw loolu mooy maysir bul waxal suñ la laajee mbir yooyu nee leen fihima ismun kabirun ismun kabirun wa manafiu linnaas ah loolu de ñëw ngeen di ko laaj waaye daal am na njëriñ li ak am na bakkaar bu rëy de waaye am nañ njëriñ dégg am na njëriñ boobu nag avant ñuy araamal avant ñuy araamal sàngar avant sara sàngar des araam dégg léegi nag nañ seet ñuy wa ismuhuma loo xam ne danga koy def te bàkkaar bi ëpp njëriñ li amul solo mu ne wa ismuhuma akbaru min nafihima waaye nag bàkkaar bi de moo ëpp jariñ li am na ñoo xam ne ci lañuy bàyyi yàlla ne wu yasaluunaka dikkaat nañu di la laaj maaza yunfiquuna lan la ñuy dépensé dañu dépensé ci seen alal qul waxal li ngeen di dépensé mooy ay al afwa lépp loo xam ne des yittewoo nga jëriñu nga ko ba mu des moom ngay joxe loolu nag bu jëkk la دين كذلك نكونون يبين الله ليالا دي بيرال لكم نيلن الآيات آي لعلكم غيين تشكرون جين من من سانت خيول يالا في الدنيا تي ادين والاخره الاخره ويسالونك نيغي لاي لاج ان اليتامى مير جيرمي مير جيرمي bul waxal yaa moom sallallahu alayhi mooy jirim ñi nga xam ne seen baay yi dañooy gaa gaañu bàyyi leen fii ñu bàyyi gaañu ci jihaad ñu dee ci jihaad walla ñu dee mort naturelle ala kulli xaalin daal ñàkk nañu ay baay kooku mooy jirim jirim du noonu dafa am lu ñuy wax jirim ak baayo baayo mooy ki nga xam ne ndeyam dafa génn àddina kooku la ñuy wax waaye jirim mooy kii baayam génn àddina hmm? ah boole na ñaar jirim na ba jirimaatu déedéet soo déggee jirim rek koo xam ne baayam dafa génn àddina nekk xale baayam génn àddina kooku mooy jirim su ma ah, ñun ñëpp kenn dinañu wax jirim ñun ñëpp ay ah, astafurlah sax yow bokkoo ci waaye man jirim la man yàlla dafa dogal moom dama xamul ndey xamul mu bàyyi waaw ah, ma ndey xamul bàyyi mënuma wax ne sama pap nii la mel mënuma sama yaay nii la mel dañuy nettali rek ma ma ma kii ah xanaa photo foto seen photo seen noir et yooyu nga nga ñëw kii Hmm? Mhm. dafay am am na jërë jërëm bu mag bi xam nañ ko moom yépp foofu ci ci ci ci moom la ñuy yéege yonent bi alayhi salaatu moom moo njëkk nekk jërëm hmm? hmm? teel na ñàkk baayam bi muy ñàkk baayam boobu mu ngi ci biiru ndeyam ñaari weer mu nekk ak yaayam ba mu am ñeenti at am na ñu wax loolu am na ñu wax juróom benn at am na ñu wax loolu la yaayam génn àddina wa ama arbaatin أو ستة أو ستة هلكت أم النبي بأبواب بأبواب أو الزهم حاج مالك حاج مالك نين وآم أربعة أتوم نينتل ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aw sittatin am na ñuy wax juróom benn at bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amee xalakat la génn àddin umma nabi yaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amin bintu wax ñu ne ko fan la ko defe mu ne bi ab waa benn dëkk boo xam ne bu jegee Medina mu ne awi zuham am na ñeneen ñu wax zuham la génn àddina dafa demoon foofu di ziyaare axwaali yi mooy ay ay ay ay ay ay ay ay tàntam ay ay nijaayam ñu fa nekkoon côté yooyu mu dem di ziyaare leen mu feebar fa génn àddina yonent bi sallallahu alayhi kon quatre ans wala six ans la dund ak yaayam ah, baayam moom gisu ko moo tax mu ne yasalunaka ñu ngi lay laaj anil yataama ci mbiri jirim yi bul waxal islaahun lahum yéwénal jëmale seen alal su fekkee ne sa alal dugg na ci alalam خير موغن من ترك ذلك اك باي لول موغن يوغنل جي موغن باي يوغنل وان تخالطهم سنجين جحسوك نيوم فاخوانكم نانين خامني سيني مبوك لانيو فهم يوم اخوانكم في الدين كم نسا فرير di boole alalam ak sa alal walla sa sœur walla sa tànt walla sa kii jirib waaw te wallaahu yàlla nag yaalamu aji xam la al mufsida ki yàq alal ji min al muslihi ak ki yëwanal alal ji yàlla xam na ko yàlla xam na ko soo yàqee alal ji yàlla xam na soo ko defaree ba ñoŋal ko yàlla xam na tere wuñ la nag fekke na yaa koy dundal yaa koy dundal nga dindi ci loo xam ne lu mu munu dundet fekk munoo ko dundal te laaloo alalam munoo ko dundal te laaloo alalam na nga dindi ci alalam li muy dunde li mu mun a dunde moom 300 lay mën a dépense par jour wala eh, cinq cent la mën a dépenser pour pour par jour te mënoo ko yóbbaale loolu nanga ki dindi loolu ci alalam mu ciy dépense amoo droit weesu foofu soo ko mënoon bàyyi sax nga lijjanti moo gën waaye nag su loolu mënoo am te moom am na alal te yow yaa koy dundal te amuloo ko dundale jël ci loo xam ne mën na participer ci dund gi mu participer bu ah bu mu bu mu yeesu lool su soxlaa dàll nga jëndal ko ci su soxlaa yére nga jëndal ko ci su soxlaa mbaxana nga jëndal ko ci su dee dafay jàng nga fayal ko ci jëndal ko ci ay këy ak yooyu lu méngoog lu mu soxla bul yàq li ci des nga def ko fu muy ñoŋe su dee di banque bi lay ñoŋe nga yóbbu ko foofu su dee da nga bëgg ubbi ko magasin nga def ci ay jaaykat alal ji di gën a yokk nga def ko waaye ala kulli xaal yaay ci alal ji yaay responsable ci alal ji masuliya kaam taam yaa ko yore ci alal ji alal jiram dafa doy waar de alal jirim dafa doy hmm walaw sha allah su neexoon yàlla la aanatakum dene len sonnal khatal len ngeen yor jirim yi ak alal yeb te du ngeen ci lal dar da ngeen ci ñeme lal dar su neexoon yàlla yàlla yàlla digle lol yor len len ngeen bay bu len lal seen alal dara dara dara kon yéenay sonn ndax yéena leen dundal te ñoom am nañu alal bàyyi nañu alal may seen waajur bàyyi nañu alal donn nañ ko te du ngeen ci mos du ngeen ci laal waaye yàlla deful lool ndax inna allah yàlla azizun aji not la ci nguuram waaye xakimun kuy xarañ la ci jëfam wax jooju jeex yàlla ne wala tunkihu wala tankihu bu leen takk al mushrikaat bokkaalekat yu jigéen yi xataa yumin na ba ñu gëm yàlla ndax wala amatun muminatun kat xayrun min mushrikatin jaam boo xam ne dafa gëm yàlla kat moo gën sànq ni nekk sàng la ah te gëmul yàlla kon yéeféer bokk na ci yu daganul takk mooy yéeféer mushrikat mooy kiy bokkaale daganul ñu takk leen xataa yu amin na xaaral ba mu gëm yàlla xaaral ba mu gëm yàlla mushrikat nag laa wax ñun nag des fois dañu mën a sa se munuñ séparé boroom xam-xam yi sax xam nañ ko waaye ñi jàngul moom munuñ séparé bokkaalekat ak ki nga xam ne yahud la walla chrétien la bokkuñ de ko chrétien yi ñoom gëm nañu yàlla am na yonent bi ñu gëm du noonu chrétien yi juif yi gëm nañu yàlla am na yonent bi ñu topp ñoom gëm eh, eh, ñoom ñoom gëmkat la gëm ki waaye gëm yàlla lañu bokkaalekat nag mooy ki nga xame ne dafay jaamu xërëm waaye dafa jaamu jant bi walla dafay jaamu weer wi walla ay biddéew lay jaamu walla dafa samp bant di ko jaamu walla da jaamu tuur <laughs> tuur ah dafa jaamu përëm wala dafa yett bant di ko jaamu ala kulli xaalil leneen lay jaamu laal du du dul yàlla kooku mooy bokkaalekat kooku nag yow jullit bi amoo droit tàkk ko feek nekkul jullit hmm? léegi nag léegi léeg ngay gis benn chrétien walla benn juif bu jigéen sa doom bëgg ko walla sa frère bëgg ko nga bëgg a opposé déedéet waa takk jullit na mu moom moo gën waaye su fekkee ne takk nag décidé na du ko takk nag jàppale ko mu takk ko mun na am mu indi ko ci diine lislaam même su tuubul nga bàyyi ko si diinam ñaata ñoo am fi ay ay soxna yoo xam ne ay chrétien lañu te ñoom ñoom ñu nekk ay jullit chaque chaque jour nga gis leen eh, jéeg seen jëkkër yi di dem juma ak seeni doom yi nga gis eh, jabar yi di dem de église loolu kay bari na fi waaye nag inconvénient bi mooy du ngeen donnante nag sëy bi ngeen séq waaye soo dee du doon na sa alal yow su dee doo doon na sa alal ndax bokku leen diini sëy bi rek moo leen boole sëy bi am problème kenn ku nekk nekk ci di ci diinam xam lu tax ñu koy d'accord lislaam di ko permettre jullit bi dañu yaakaar ne waaye nag léegi doy na waar de di taxoon ñu koy d'accord ñu d'accord nga takk chrétien walla juif te ñoom mënuñu takk ci ñun du noonu soo takkee ci ñoom te nga nekk jullit musulman pratiquant waxuma jullit musulman non pratiquant waxuma loolu <laughs> dégg nga wax ci soo nekkee pratiquant ndaw si du la mën a yóbbu fenn au contraire yow yaa koy xëcc sa diine su fekkee dina bëgg na la ngeen dund lu bari su moytu rek nga dugal ko ci sa diine walla yow nga am fulla ak fayda parce que comme pratiquant nga nga am ay doom yoo xam ne nga tudd leen ci lislaam sooy dem jàkk nga yóbbaale leen sooy dem jumaa nga yóbbaale leen tabaski nga solu ba jekk yóbbaale leen gàmmu Tiwaawan yóbbaale leen màggal Tuubaa nga yóbbaale leen gëm gàmmu ñaseen nga yóbbaale leen xew-xew diine yépp ngay ànd ak ñoom ba dugal leen ci daayir ay su ba yàgg yàggee en général jigéen la ay doomam nekk su moytul mu nekk ko kon bu booba diine lislaam yokku na waaye su fekkee ne noo pratiquant nga li tubaab bi waxoon rek biñ ko mayee soxna dégg naa fi xam naa fi ñu ko mayee woon sax dañ ko wax ne faw nga tuub ñu mu soog la may xale bi mu tuub ñu may ko xale bi bi mu toogee bañ tukki ba ñëw Nyo gis waje julli woul. Tou babi jullet woul. Nyo ne kwa yow. Me jullit mwotakon nyo may los yon jom. Tere julleto lan la. Mwen e pwos pwotan euh, julli mwotakon gen may mesyen jom. Me kingen mama yi dou julli. Konkou dou julli kaye. Tere lor mwone kon charte di. Man kwen mwen te doye julli. Tere bima julli lor, lor mwotakon. Kingen mama yi dou julli. soxlawul may julli gis nga loolu wante woon dëgg nag ah su fekkee ne fekkoon na ko mu julli mu sax ci waa ji bëgg na ko dana dana dana commencé di julli ah mais mais ngëm lii kii la parce que ki nga ki nga fekk si ci diineem du pratiquant loolu nag itam jullit boo xam ne bu doyadi bu doyadi boo xam ne du du pratiquant soo ko mayee catholique walla bu su moytu sax mooy ànd ak moom église bi di kii su ëllëgee ndaw si suy ànd ak say doom église doo sañ bañ parce que da ne non benn lépp lépp benn la quoi yàmbar ah loolu moo tax wala tankihul mushrikaati xataa yu'min bu leen takk bokkaalekat yu jigéen yi bàyyi leen ba ñu gëm yàlla ndax dem takk jaam boo xam ne wax nañ la jaam la moo gën takk ki ñuy wax sàng te gëmul yàlla dégg nga wax ji dégg nga wax ji de akay wala ajabatkum doonte yéem na leen seeni alal walla seeni taar moo tax bu leen ci dugg rek bàyyi leen mu dem wala tunkihu bu leen dénk al musrikiina bo góor góoru bokkaalekat yi ngeen dénk leen seen doom may may leen seen bu leen leen may seen doom góor ñi nga xam ne ay bokkaalekat lañu bu leen leen may seen doom yu jigéen xataa yu'minu ba ñu gëm dégg ba ñu gëm ndax walla abdul mumin wallahi jaam boo xam ne bu gëm yàlla xayrun moo gën min mushrikin ci sàng bi ñuy wax sàng la te gëmul yàlla walaw ajabakum doonte yéem na leen alalam léegi nag tubaab yi dañu ñëw xam nañu suñu doom yi ak suñu seeni waajur dañu bëgg alal ñu ñëw nee la dañoo bëgg sa doom nga ne xanaa nga tuub soo tuubulee du ma leen ko may ndaw si moom mooy wax ak jëkkër ji tubaab bi walla chrétien bi walla juif bi mu ne ko non dangay wax ne dangay tuub rek ñoom soo kii soo soo waxul loolu soo deful acte bi duñ la duñ duñ la mës a may ah mu diil ak moom ñëw waa ji ñu nangoo nangoo tuub nangoo watu nangoo sangu nangoo tuub loo waaw loo ci mën su tuubee loolu loo ci mën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne atte atte leen zawahir yi ngeen bàyyi damaayir yi ci yàlla li feeñ atte leen li feeñ waaye li nëbb yi xam ne yàlla rek a xam ngeen bàyyi kook yàlla mais comme que ñëw na def acte boo xam ne ku dugg ci jullit euh, lislaam ni muy def def acte yépp nooy def nga ne ko déet non non non da ngay naxe sa yoon newu ci voilà nga may ko loolu mooy tax nga maye su demee nag moo boo war ne nekkatul jullit su doon ci lislaam su murtade di commencé di dugg euh, delluwaat ci euh, ci chrétien wala ki yooyu dañ koy rey aman yartadi minkum an diini fa yamut ah wa huwa amalu kooku dañ koy rey kenn du dugg ci lislaam ba pare nga murtat génn walla delluwaat ci kéeféer waaw waaw génnaat ci lislaam moom ku ci génn dugg ci ba pare génn rek waaw rey lislaam kenn du ko du ci dugg di génn waaw lu la ci dugal génnewula ci lu la ci dugal génnewula ci hmm? waaw sëy amu fa de sëy amu fa jigéenu jullit buy sëy ak catholique walla sëy ak sëy ak juif walla yéeféer sëy amu fa ñu ngi nekk juddu nañ rek après su sëy bi baaxul kay doom yi baaxul doom nag yoonam newu ci moom deful dara dañ ko jur noonu rek su jaamoo yàlla na jaamu yàlla rek su fekkee jaamu na yàlla yàlla da koy fay moom moom deful euh, xam nga dañuy wax ne laa yadxulul jannata laa yadxulul jannata wala du zina benn hadis boo xam ne نين لا يدخل الجنة ولد الزنا الحاج مالك رضي الله عنه بندنا تي كفاية الراغبين من إن أم إن أمل أمل آه، أمل أبو أبو واه أبو واه تي ولم يتوب خنا سو دفي سو جفي جفو أي واجرب تي توبول با آه، لول كاي فما زنبو لان بان بكار لا mune lol njumte la hadis bi kiko solo dafa jum rek xamna kiko solo mu ngi tuddu daawud zahiri mune mom moko tuddu ko dafa dafa juum ndax xale bi mom deful dar, <laughs> deful dar, mom deful dar, waaw do jëddul ci yoon waaw yoonam newu ci mom lum ci mën xana ñiko ñiko sabab kay ñom ñoy la sari sharia euh, atté sen sen bir waaye ñoom moom kay doonu ci dal doonu ci dal na dem jaamu yàlla comme ñëpp ñëpp rek dégg ci ci mënoon dara du fa juddoo walla du juddoo ci façon boobu waaye mënu ci dara yoonam newu ci yëgu ci ñi ko def kay ñoom ñoo ko def su dee bàkkaar bi ñoom la su dee duma yi ñoom la dégg walaw ajabakum bu leen jël seeni doom yu jigéen jox jox leen góor ñu dul jullit jël leen jox leen jaam bu ñu moom moo gën jox leen sàng boo xam ne jaamukat xërëm la xanaa leer na léegi nag ñun suñu doom yu jigéen yi catholique yi ak juif yi amuñu droit tàkk leen dagonu ñun nag seeni jigéen ñi war nañu leen takk mun nañ leen takk dégg nga wax ji akay ñoom ñoo amul droit takk ci ñun waaye ñun ñoo am takk ci ñoom dégg walaw aajabakum doonte yéem na leen nag waa ji alalam ak taaram ak juddoom ak pouvoiram bu leen ci dugg daganul hatta yuminu eh, ulaika ñooñu bokkaale kati yaduuna ñu ngi woote ila naari jëm si safar ñaari kurel yo bokkaale kati yaduuna ila naari ñu ngi woote jëmale ci safar te wallahu yàlla yaduu ila aljanna yàlla mu ngi publicité ñëw leen ñëw leen ci àjjana ñëw leen ci ajan ñooñu ñu ngi woote ñëw leen ci safara ñëw leen ci safara jëliñ ci àjjana wal maxfirat ak njëggal bi izni yi ci coobare yàlla wa yubayyinu mu ngi biral moom yàlla aayaati yi aayam yi walla kéemtaanam yi linnaasi ci nit ñi laalum ngir ñoom yazakkaruuna ñu mën a waaru boo topp lu baax bàyyi lu bon wax jooju jeex yàlla na ne wu yasaluunaka ñu ngi lay laajati anil maxiidi ci mbërëg déretu euh, mbaax déretu mbaax déretu mbaax jigéen ju gis mbaax deret ji ñu ngi lay laaj lu mu doon ndax laab na wala laabu sobe la wala du sobi qul wax leen huwa loolu de deret jooju azan sobe la dégg azan sobe la kon nag xam nu ngeen di def fa atazilu annisa na ngeen beru jigéen ñi bu leen leen jege ngir ànd ak ñoom déedéet nangeen ngeen leen beru fil di ci mbërëg mooy ci suñu indisposé bu leen leen jege wala taqrabuhunna bu leen leen jege xataa yatuhurna ba ñu ba ñu laab ba ñuy de laab ba sangu suñu sàngoo nag ba set nga xam ne set nañ ba sàngu ah ngeen ànd ak ñoom fa isa xar na suñu demee ba laab nag set fa aatuhunna na ngeen leen dikkee min haysu amarakumullah fi leen yàlla diggal ngeen jaare leen fi dégg su ko defee ngeen ànd ak ñoom ni ko yàlla santaane su leen neexee nag ngeen tëdd jaaxaan walla ngeen taxaw walla ngeen toog hmm? walla ngeen tëdd walla ngeen jàkkaarloo walla ndaw si woon la ginnaaw lu la neex nga def ba mu des jël sa awra dugal ko fi muy deme kabin boobu mu daganu loolu liwaat la liwaat la loolu mooy affaire ngóor jigéen liwaat mooy ngóor jigéen loolu kenn du ko def dafa dafa dafa araam kantaan ak position yàlla waxu ci position dara dara li ci des position yi la feek yaa ngi koy def fi nga ko war a def position bi yàlla konte wu ko inna allah yàlla li tax mu diggal leen ko yu yuhib bëgg na moom yàlla al mut at ñi nga xam ne dañuy tuub ci bàkkaar waaye yuhib bëgg na itam al mutahharina mutatahharina ñoo xam ne dañuy sàkku la yàlla ne nisaaukum seeni jabar yi xarsun lakum seeni tool lañu yàlla ne seeni jigéen ñi seeni tool lañu seeni tool lañu ñi ngay jiyee sa tool yaakaar mu sax noon nga noon la sa soxna mel maanaam daal ànd gi ngeen di ànd daanaka njii yaa ngi yaakaar mu sax képp ku takk soxna yaa ngi yaakaar doo doom du noonu ku takk soxna yaa ngi yaakaar am doom ku ji tool yaakaar nga mu meññ sant yàlla dégg nga kon faatu harsakum na ngeen ñëw ci seen tool anna shiitum numa leen neexe min qiyaamin wa qu'uudin wa dishaain wa iqbaalin wa idrbaarin ni ma ko waxee woon léegi noonu la wa qaddimu na ngeen jiital li anfusikum ñeel seen bopp al amalu saalix jëf ji yiw maay wax ji mel ni bismillaahi indal jimaay bi ngay ànd ak soxna si bul jóge fale rek màmm rek ñëw dal ci kawam déedéet gis nga raaj non non non l'islam charia seexluwul sëriñ sëriñ seex dafa doon sari seexluwul baat firi dañuy bañ dañuy bañ nga jóge fale rek kàng jër rekk ñëw dal ci kaw ndaw si te moom préparé wu ko dégg nga wax ji kon nanga nga moom na nga raayanteeg moom bëreek moom def ma moom ba si yaramam tàng sa yaram tàng acca combat bi commencé cettt yàlla bàyyiwul dara xam nga lu tax gis nga góor ak jigéen suñu àndee lii génn ci ñoom li génn ci ñoom kenn ku ku ne lii génn ci yow am na fu muy fu muy génn am na fu mu jóge waaw góor ndoxam yaxruju min bayni sulbi wa taraayib bayni sulbi diggante yaxu ndiggali yi ci ginnaaw foofu lay ndox mi di génne ginnaaw bi ko bopp bi travaillé yuur yi travaillé su ko defee nag mu am passion hmm, affaire bi ñëw mais suy génn dafay génn ci yax yi yax ndigg yi rek mu wàcc ci sexe bi jegewul xam nga jege na ndigg ak sex bi jege nañ de léegi nag ndaw si kii su eh, génne min bay ni sul bi kee wat bi ndoxam fii lay génn ci siddi sidditu baat yi ci lay génn waaye balaa muy gi waaw soo soo demee ba tàng jër ñëw ànd ak moom te moom yow sa ndox dafa jege te moom ndoxam muy jóge ci ci baatam balaa muy agsi fi nga pare nga sonal ko parce que pareegul danga ko war foo ba nga xamee moom li sore woon jege na comme yow foofu la jóge wattaraay bi انه على رجعه لا قادر ku génne nit ci اك في fii composé ci nit innahu ala raj'ihi la qadir delloo ko su دي nga delloo ko dékkil ko def ni yàlla yàlla aji attan la ci lol parce que defa créer avant que moy réparer te réparation defa defa mel mo gëna yomb ak création def ko créer fi ak fi dara amul

am ci yow bu na ko miin ci yow bu mu ko miin ci feneen am na yu bari changé na ko miin ci yow bu mu ko miin ci feneen kazalik jigéen ku ndaw si itam li muy seetaane feneen na ko seet na ko gis jëkk gis ci yow moo taxoon Ibn Abbas dafa doon inni la atazayyanu limraati kama tatazayyanati man damay ni may changé ni sama changé jabar di changé pour man man itam noonu laay changé pour moom waaye di ki di sol ay sagar di xabar xabar rek sa jabar góor gu gu gu jekk gu ko rob mu ne xaa ah, ak neexoon kii mooy sama kii doon sama jëkkër ku góor ki itam noonu danga gis jàgg jigéen ju jekk nga ne ah ak neexoon kii nekk sama ki wàllu solo rafet na lalal naa la lew na jekk na xaw na jekk na ne xaw mu ndax lew na ah yooyu yëpp di koy waral mooy gis nga jigéen ñi nag léegi góor ñi jënd suñu yére de jëndutuñu dara am lu tax soo leen jëndilee jasineer valise bi ba mu fees walla armoire ba mu bee fees duñ ko sol mukk toog sa wet di la xiimal ataay walla ngeen di waxtaan wala nga tëdd ci canapé bi njëgënaayu ngeen di waxtaan fekk sol na jasineer bi déedéet xam nuy def xaaral baay ma ma gaaw xaaral ma kiyaasu ba balaa ñoo raaw ma ñu ngi dem ci tuuru ba kat mu ngi jëm ci ngénte bi ngi si xew su ñibbisee bàyyi na la foofu su ñibbisee xam nga njëkk ñu <laughs> ngi njëkk def su yëgsee ci dafa tàng misir misóor bi lay njëkk fiiri sànni ko ci kaw canapé bi simmee ku sànni kii gis nga sañse bi do ci xam dara do ci gis lo kon lo lo tax ngay jënd jarul ngay jënd darab bi na kazalik kon ni tek so fof suñu baram ba ëllëg insha allah euh, ñu ngi sante ñepp di gërëm ñepp di jéggalu ñepp insha allah wax dafa euh di sante ñi ñu suivre ci en tv di leen ñaanal yalla يالنا يال ديفني ديغ اك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته